lixlaas yi baaxoo defal sëriñ Touba addiya ñu leen ñaan képp kuy képp ku képp ku di talube képp kuy talube sëriñ Touba fukki fan yi des ci magal gi képp kuy talube sëriñ Touba fukki fan yi des ci magal gi na nga fexe ba def junniy xulwa junniy xul wallahu ahad ak ñaar fukk ak juróom-ñett junni ak ñaar fukk ak juróom-ñett xul woo bu ni day ànd ak bisimilah rahmaani rahiim bu noppee ñu tëjee ko salaatu ala nabi bu ñu man waaw buñ buñ koy tàmbalee nga ubbi ko nga ubbi ko fàttaliku kitaab man xul woo bu ni day ànd ak bisimilah junni ak ñaar fukk ak juróom mille vingt huit képp bépp képp ku yaakaar Serigne Touba rek képp ku yaakaar Serigne Touba ni nga. fukki fan yii des ci màggal gi na nga fexe def ko fi su ko ëppee baax na bu ko ëppee itam baax na waaye képp koo xamante ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa mbaa ngay ab soppeem mbaa ngay ab soppeem fii ak màggal fukki fan yii des ci màggal gi na nga fexe ba def fi junniy la xilaas ñu ñu njukkale ko Sëriñ Tuubaa ndax jar na ko jar na ko kat jar na ko waaw ñoo ngi leen koy fàttali di ko fàttali suñu bopp di ñaan itam na képp koo xamante ne def nga ko ci dara ji Sëriñ Tuubaa suñu yaakaar tey ëllëg ñoo ngi ñaan. fa ñuy fa ñuy bu bis penc ba yàlla nañ bokk ci kuréelu Serigne Touba bi bokk ci kuréelu kuréelu Serigne Touba bi waaw képp koo xamante ne dégg nga message bi itam te jagsi na ci yow ñoo ngi lay ñaan nga jàllale ko waaw ku ko jàllale fukki nit ku ko ku ko jox ku ko jotal fukki nit euh, sa sa sa sa yitte sa yitte ci suñ borom fajal fukki fukki yitte. waaw ku ko jë ku koy jàllale fukki nit sa yitte adduna ak yitte na suñ borom jàll fajal fukki fukki yitte fukki yitte yitte adduna yitte àllaaxira yal suñ borom fajal fukki yitte ku ko jàllale ñaar fukki nit itam na suñ borom fajal yitte adduna yitte àllaaxira yal nañ suñ borom fajal ñaar fukki yitte barakat sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñi message bi nekkul message bu ñuy téye ku ko jot na ko jàllale ngir jëmi yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa bokk mi ñu bokk yaakaar te bokk te bëgg ko ci bokk liggéeyal waaw yàlla na yàlla na sëriñ yàlla nañ ci dajeeg ndimbalam dajeeg ci ngëneelam bi baraka sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke xaadim Mustafa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi soñ ñëpp di soñ suñu bopp yàlla nañu sëriñ bi nangul baraka sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke xaadim Mustafa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ndax moom moo ni akramani bihul huwa allahu ahad rabbi walam yakul lahu kufuwan ahad kon loolu rek waroon naa jar kenn ku ci nekk I'm I'm